ngir jëlee fi mbasu ba Covid 19 bile ne xus si suñu réew mi tax na rek ba ñu fi tere ay mbir ngir rek jëlee fi lii di Covid 19 bi nga xamante ne ni mu ngi ne xus si suñu réew mi loolee nag ku ñu tere bokk na si ay ndaje ki manifestation gannaaw rek ba ñu fa mën a jëlee linimel waaye nag loolee am nañu ko respecté wul ba jamono ji may waxeek ak yéen Bara Gaye sax daal dina si bokk ndax moom mooy rek da doon ak ku ñuy wax Zeyna si plein yi couvre-feu euh, doon rek luy firndeel ni respecté wuñu euh, ndogal loolee jógee ci ministre de l'intérieur ne rek euh, bépp ndaje ak manifestation dañu ko tere si ne nag moom moomee di Bara Gueye bu Clean Oil ak tamit Adja Diallo nga xamante ne ni kenn dootu ko présenté ñaa xareñ Alassane Mbaye ñu koy wax griot des VIP ak rek yeneen i mbokk ak xarit ak célébrité yu teewee woon rek boobule mariage si diggante rek kii di Bara Gaye ak Zeyna ñoo ngi ñoom ñëpp rek jamono ji si loxo takk derrière ñoom ñu ñeen nag waa section de recherche euh, bu gendarmerie rek ñoo leen dal di teg loxo gannaaw ba ñuy violer loi couvre-feu boobee nga xamante ne nii dafay tere bépp ndaje ba tax na rek si jamono ji may waxee ak yéen ñoom ñoo ñee ñëpp ñu ngi leen placer en garde à vue si nu ne nag daañu toppandi rek boole boo boobee xibaar ba xam ana fan la ñuy mujjee ak rek ñii di takk der yi.